salaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye info TV euh, ñi ngi ak le coach Mame Less mu nekk coach écurie Parcelles Mbooloo mu nekk également chroniqueur euh, sunu làmb di dafa def donc ay chroniques yu am solo comme niñ ko tàmm di defee rek moom mu nekk ndaanaanu làmb euh, faral di tàmmal ñu tamit di ñu di donc journée boo xam te tey am na euh, démb ñu daal jógee ci combat boo sans production bi nga ko tëggoon diggante Fils de Balla ak Tapha Leer de Balla daal ci am ndam lu am solo loolu moo waral tey ñu daal di toog moom pour mu daal ñuy décortiquer làmb ci waxtaan suma waa écrit salaamaaleykum waa Parcelles mbooloo salaamaaleykum aussi waa Géejawaay di gërëm Paasañ di gërëm suma waa famille di leen gërëm aussi waa Géejawaay info ci xalaat yi ñuy bokk tout temps ci soxla yi ñuy bokk aussi di leen ci sant di leen ci gërëm di gërëm ñëpp ñi ma tudd ak ñi ma tuddul ñi nga xam ne dañuy bëgg tout le temps ma leen tudd tout le temps ñu koy kaas naan lu tax Bécaye du wax ne del gërëm diw del gërëm diw di gërëm Pape di nek toulon la bokaire di gërem ñom baara toni bu ñuul toni bu xess xam nga pap fu mu dëkk ci ci toulon dëkk la bokaire koku dañ ko wara gërem diko di sant ndax day damay wax tout temps lema ma ngi déglu interview ak bekaay wa france wa toulon xam nga suma rak cheikh ak lay job aussi ñu leen gërem xadam job depuis toulon ma ngi gërem ñëpp di gërem aussi wa ikiri ndax tay fii may tok ni neexul ba neexul way bu mo fi toge wa parcel mbolo alas bakay dëgg la xam nga mooy li ma wax chaque jour rek làmb ji moom dañuy ñaan yàlla mu jëm ca kañam te ku koy jéem a yàq yàlla na nga yàqu te it aussi ñu bañ ciy wax lu ñuy xeebe ndax dafa am solo ndax nit ki looy wax rek day fekk li ngay wax nga xam ko xam nga tafaaleer ku xool dynamique bi mu nekkoon ku xool fi mu jógee xawoon na am kër tuuti parce que tafa tafaaleer boo ko xoolee ay kombaam am combat yu métti la bëri ndax tafaale dafa bëre cartouche bu fekkee ma ci boole daan cartouche bu fekkee ma ci boole ñu jox ko booy songaan géy bu école la bëgg booy songaan géy daan ko mu nekk ci benn genre pant di daan di daanu ñu jox ko mobile bu Grand Yoff mobile bu Grand Yoff daan ko xam nga boo tegalee ñaar defal rek yi dañoo yaa ngi ci kàmb gi ñu génn ci combat yooyu ñu jox ko beneen combat ñu jox ko booy ñàkk booy ñàgg moo nekk côté Lac Rose mu daan ko ak jël bu spectaculaire combat bu reuy bële lu rëy daan ko jël bu rëy léegi nag mu nekkon ci benen source bo xamné source d'énergie la boo xam ne motiver ñu tourner encore ñu doxat ko Fils de balle Fils de balle ñi ngi naan daan na comme daanu ko mais comme arbitre Fils de balle lañ jox victoire kon donc duñ mën lumay wax loolu waaw tante nak bu dé Fils de balle Fils de balle dafa dafa nek mbeur mo xamné ndaanaan la ndaanaan lu nit dul may xel la parce que boo ko xoolee ay kombaam bu ma ci juumul bu Assane Ndiaye tëgg niil na ak Boy Sey bi mu jugee ci Boy Sey joxoon nañ ko Oninga Oninga sama poulain la man Oninga jouru combat boobu bu dee fils de balle bi muy dëgg fils de balle Oninga da ko bëggoon a corriger pour dox ko daan waaye làmb mën ngaa gañe ci xeex ñu daan la ci bëre boobu fils de balle daan ko ñu jugee ci ci combat boobu daal di jël fils de balle jox ko Bour Sine Bour Sine daan Fils de Balla parce que Fils Bour Sine da ko waaxu dóor ko mu tërëf mu ñëw jekkali ko donc bi ñu jógee ci combat boobu ñu joxaat ko Balla Gaye junior Balansaar Fils de Balla ñëw daan Balla Gaye junior Balansaar donc xam nga mbër moomu seeni combat day naqaree euh, détaillé waaye ay ndaanaan noonu la ñuy daanante seen biir ñu tourné waat jox ko Tapha Leer démb ak combat bi lu mu mënti demee arbitre bi euh, fils de balle lañ jël lañ jox victoire bi fils de balle moo am dam ñu koy félicité comme d'habitude rek nee nañ ñeeneen dañ bind recours waaye combat mel boo daanoo da sportivement rek war ngaa nangu ne daanu nga euh, bu yàlla def aussi daanoo am na loo yoon may loolu nag ñu ngi ci toog déglu gars yi di xool ba xam nan la wànn bu dëgg ba dëgg arbitre mom lañ jox victoire day melni jeli bi dafa xaw tax suuf te ñun niñ sétane mom dafa melni chute amna yow lan lan nga gis ci côté bobu tamit côté chute bi non xam nga côté chute bi chaque fois bu dee def action bu dee lamb réalité lamb bu dee chaque fois ki jël initiative def action ñaar bu action ba entamé normalement ki def action mo war dal waye xam nga comme arbitre fils de balle lañ jox victoire nak nga wala fils de balle mo am victoire mais comme nit ñi nga naan daan naan daanul mais Euh, tafaaleer daa bàyyi mëninam ndax tafaaleer danaan cokkoos gauche di xaar nga ñëw ndax daa mën a jongale comme ni Fils de Balla mën a jongale kon ñaar ñi mën a jongale lañ boole démb parce que tafaaleer dafa mën a jongale comme ni Fils de Balla mën a jongale parce que Fils de Balla wax naa ko dem ne leen da koo xaw a ëpp tuuti volume ndax boo gisee Fils de Balla xam na liggéey na mais tafaaleer li ma jaaxal ti moom mooy chaque combat rek ni ma gisee corpérance am noonu lay toll te loolu moom ay njaatigeem ñu koy tàggal ku mel ne mbay war na koo xoolaat xool ce qui se passe ba xam mi ngi ñëw sérieusement aux entraînements ba xam mi ngi koy def ni ko coach yi bëggee parce que daal Tapha Leer man chaque fois rek même corpulence yaram bi laay gis te fils de Balla ni ma ko gisoon bee passé ci Balla Gaye Junior ak tey dayoo bi mu indiwaat nga xam ne kii mi ngi liggéey dëgg dëgg dëgg dëgg. daal dem Maroc dem entraîné ji. bi mu ñëwee mu andi combat poids boo xam te dafa xaw jéegi dayoo ñu bëri doon posé wala est-ce dina adopté wu ak yaramam dina am benn mobilité. Mm. mais démb ñu gis également ne am moom na yaram ànd naag mobilité boo xam te bu jàppee dina mën a liggéey lu mu bëgg lan nga yaakaar ne moom la liggéey ba mun a am loolu ci bis euh, xam nga Fils de Balla liñ naan ndox du bàyyi yoonam. gis nga nit ki boo amee benn mani Fils de Balla nit ku ne ak mbër mu ne am ngay feem mbër mu ne am nga foor mbër mu ne am nga loo man mbër mu ne boo amee yenn dayo yi parce que démb nee naa la ñoom ñaar ñoo tolloo dayoo ñoom ñaar boo xoolee euh, Fils de Balla da ko ëpp tuuti volume volume bi mu ko ëpp noonu bu futtoog moom bu jugee dafaa day xaw a oyof donc nag jongale bi da ngay xool rotation bi demi bi Fils de Balla def donc en aucun cas bu tafaaleel jiituwul comme kii moo entamé action bi dana ma jaaxal loolu man ci combat bi. ko taf ko jéem loolu yëpp di wane malgré poids bi moom na yaramam lan nga yaakaar tey moom la liggéey ba mën a am benn mobilité bi moom yaram malgré prise de poids bi. boo xoolee combat bi nee naa la tafaale góos lay cokkaase te boo xoolee laataa ma entamé action bi tafaale cokkaas ko góos parce que tafaa dafa bëggoon dóor sa waay rappel mu daw jiwaloo moom waaye Fils de Balla da ko xaar ci loolu dafa xaar ba tafaale dóor góos. di génnaat mu daw xaaru ko daw na def benn rotation bu ndaw tafaaleer wiccu dellu gannaaw Fils de Balla gën a jàpp parce que Fils de Balla boo jàppee sa manin xam ne kii bu ma ko bu ma fuddoog moom mu jóg maa ko ëpp volume tuuti ndax li ma liggéey peut-être wane na moom liggéey na wane na nag entraîne na wane na li mu génnoon defi am na njariñ waaye li ma jaaxal mooy li ma wax tafaaleer chaque fois combat mi ma koy gisee même corpulence yu yaram bi laay gis ni ma ko gisee contre booy booy ñàkk moom laa gisaat contre contre fils de balle. waaw kon sa foofu laay taxaw tuuti sax parce que loolu tamit lu ñëpp ràññeele muy tafaale bi duggee ci làmb ba léegi donc même même même poids bi lay corpulence bi dañuy di gis ni sax mbëri progressivement chaque année dañuy ñëw chaque saison daal yokk volume mhm. comme ku ci mel ni Diène Kairé bu ñu ko dalee gis ay dibam ak léegi chaque saison day yokk progressivement mhm. mais Euh, ba moom à fois donc évolution bi daal di xaw a yéex ci xam nga entraînement bu sérieux ak récupération bu sérieux bëri mu ko def mu feeñ ci yow xam nga peut mën na nekk fa muy entraîné nekk dëkk peut-être mën nay entraîné Dakar dëkk Mbaaw wala Diamaguène wala yooyu te temps récupération buy def ci oto yi ak temps bi def dem entraînement ak temps bi def dellu si peut-être mën na feeñ ci yaram bi mais combat yi ma gis man. te man du wax luma gisul luma gis la wax dama fekkee te damay dem lamp lamp ju am damay dem fu mu sori sori sori ci Sénégal damay dem seetaan donc lima gis man ci Tapha moy mooy moy gis ci mom mom la gis chaque instant te corpulence bi peut-être dina jéem yok touti mais même tay bi la gis man man lima xam rek la wax. même tay bi la gis lolou weesoo côté stratégie lan nga yaakaar ni mo daaneel Tapha non Tapha xam nga warna na Fils de balle ay combat peut-être nee naa la ñoom ñaar ñoo bokk yi ma ni mais bëri bi njëkkante la woon tey fii fi tafaale da doon bëgg a cokkaas góos xaar sa waay jóg mu liggéey li bëgg liggéey ndax c'était déjà préparé mais dama ne la de balle bi tafaale cokkaase góos mu xam ne xeex bi arrangé ko dafa daw yooru jàpp ko bi mu ko jàppee aspiré na ko def benn rotation bu ndaw dafa dafa leer rocceeku reculer ñaar yoon ba ñett fils de balle gën a ñoo ko jàpp bi muy fuddoog moom di ko songal parce am na gis nga dafa am solo boo ko mënut bu la buñ buñ buñ la busloo nga toog mais jongalaa il faut que sa centre de gravité bi baax nga mën a jongale ki nga jongale fuddoog moom mu jóg nga mën koo teg suuf. su ma la déggee daal différence de poids bi dafa joué ci combat bu baax. si parce que ñoom ñaar ñoo tolloo corps presse boo xoolee ñoo tolloo taxawaay ñoo tolloo corps presse mais kii da ko ëpp volume ëpp ko doyoo te man leer na man leer ak yàlla ne man bi ma xoolee combat bi xamoon naa ne bu ko Fils de Balla jàppee ko jongalee combat bi te loolu waxoon naa ko avant combat bi dama koy gën a firndeel te loolu moo amit waaw. waaw kon si Fils de Balla am ndam ci ki nga xamante ne mooy kaw dafa leer fan nga yaakaar ni foofu la jëm ak ñan la war a mën a bëri dina ñëw ay potentiel adversaire am. non xam nga Karadas bu ne dafa am ay génération te fi mu toll nii comme Fils de Balla nekkul sama écrit man bu doon sama écrit man ñi wax ne diw ak diw limal la cinq personnes yoo xam ne maanaam ñii war naa tas ak ñoom waaye comme Fils de Balla ci beneen écrit la nekk mënumaa wax ci moom. waaye di ko félicité bu dee ci victoire bi mu jógee di ko félicité bu baax di ko encouragé di ko gën a motiver ne ko yoon bi mu jàpp bu mu ko bàyyi. Tafalee aussi démérité wul ndax xale la comme fils de Balla la yoonam tolloogul fenn na xam ne lii sport la sport de combat li ma la ciy wax moom la mbër yëpp yi naw heure booy daanu jour ba ngay daanoo danga naan tuune nga boo daanoo nag nit ñi dar la waaye boo daanoo rek wéet booy tujj sa kër yow dong yaa fay nekk mais sa avant combat. ak sa préparation combat bu cent personnes doon ñëw yendu sa kër cent personnes day daaw day ñëw sa boo daanu nag doo fa gis sax lu mat deux personnes làmba ni mel mais nag na bañ a découragé bu xëyee la takk jaaj yi takk dàll yi def longue distance reculer marche canard soo gën a defar yaram bi jox ay mm, jox ay entraîneur bi ku mel ne mbay yaa ngi dégg jox ko cër bi moom parce que dafa am solo nit da nga koy jox cër bi moom ci yow di dégganteeg moom surtout ngay doon élève am maître sa maître war la jangal te xamul ci yow dara loolu ça arrive souvent ba motax problème yi mbër yi am des fois seen préparation du bax deug deug da ci am solo parce que il faut aussi bo bo bo, bo jëlé sa sa sa sa bop jox ko nit del deggo te mom di diso mo nan ko ah coach sukat luma wara a def tay wala coach sukat semaine bi duma ñew dafa am ci luma ne way lan ak lan la wara a liggéey dafa am solo mbër yu duñ ko def motax tax mbër yu dañ ci gis seen bopp te mbër yu ko dara mu yaakaar ne kii da koo bañ wala kii da ko soxore mais tafaaleer na ba a découragé xam na lii combat la te combat bis boo daal da nga cuune. en plus doguma la mais fils de Balla mobile 2 nga yaakaar ne kii double moteur nga yaakaar nekkul combat moom laa la xam nga Caradass mën naa laa limal Caradass boo xam ne ay génération rek mais dama ne la euh, fils de Balla am na ay adversaires yoo xam ne même génération comme ni génération Sa amee génération fils de Balla am génération. xale yu ndaw yi yenn naataangoom yoo xam ne ala kulliwaal ci cinq yooyu la war a bëri. loolu lañ soxla nag ku ci mel ni kan ak kan. ma la wax xam nga dama ne euh, bu nekkoon sama écrit ma ma la cinq potentiel yoo xam ne moom la war mais bu ma ko defee day nduru leneen waaye nañ yem ci càmbar gi yem ci mbàccum gerte mi xam nga bu kenn bi ko xam nga moom day daal deewaat tax ma ne naa yem foofu waaye ay adversaire am naataangoom yi mu tolloo génération parce que génération bu ne am na yoon boo xoolee fils de balle ak génération ñoom Diène Kayré Quench Marley ainsi de suite moo xam nga ñooñu moom am nañ génération Sa Thiès ainsi de suite Yékini Junior Sa Thiès Moussa Ndoye Sa Thiès Garga Mbossé Sa Thiès keneen mais nag comme ñii dañoo bokkul ay ay ay bagages donc nag ñu am seen équipe bopp ma am sama équipe moo waxee day mel ni leen liggéey. léegi loolu am na comme nangu woo lim fils de balle ñan la bokkal génération ci lamb bi. comme non xam nga Karadas la xam nga fils de yaa ngi naan double moteur. xam nga Fils de Balla yaa ngi naan mobilité bu Grand Yoff xam nga xam nga maanaam ñi ñi ñi ñi tafaaleer bëreel ñoom ñoo bokk benn génération mooy Fils de Balla Fils de Balla Bour Sine foo ko fàtte combat tey bu ma la doon limul du jeex combat njërndéem lay nekk gis nga combat day nekk combat jànq waaw xam nga gone gu jigéen boo ko mayee bu muy seetu moo gone gu góor day neex noonu la combat yi ay gone lañ dañoo war a bëri seen biir bañ a Euh, kaddu am na solo kon suñu bàyyi la nga tàggatoo rek. Euh, comme d' habitude rek li may wax mooy naay wax chaque jour li may bañ a xeebee càndum te di gërëm li la wax di gërëm pap depuis tron di gërëm waa waa bokeer yëpp di gërëm ñoom bara di gërëm ñoom tooni baara depuis marché njaare marché bees soriwu leen di gërëm ñoom tooni bu ñuul tooni bu xees di gërëm gaa yëpp di gërëm suma rakk Cheikh di gërëm laa Diop so frère bi nek Toulon Omar Mbow sama xarit bi nek France bi ñuy xale ba léegi ñooy ànd te jabar rek lañ mënta bok di ko gërëm baax di gërëm sen ba depuis bal di gërëm lam ñang depuis Suisse sumay frère lañ invitation yi ñu def ma yow càndum fuñ mu toll heure buñ ko duggalé dañ koy déglu buñ ko déglu ñoom ñoo ma njëkk man duma am sax jot waye ñom ñomay apprécier lo ma rafet na nangam ji donc di leen gërëm ñom ñep ñom yaaram bi nek Suisse ñoom Birame Niang xam nga di gërëm ñoom moo Mamadou Niang Saanu xam nga Khady Ndiaye sama rakk bi nekk Allemagne di sant ñëpp di sant waa Guédiawaye Infos di sant ngi noonu mu nekkoon le très chevronné Mame Less nekk coach écurie Parcelles mbooloo nekk ndaanoon làmb comme ni nga ko waxee sànq Eh, moo tax à chaque fois dañuy sawar di ko suñu micro bu làmb amee ba noppi journée bu ci mënti doon mu daan ñu koy décortiquer faram fàcceel ñu ko eh, mu doon kàddu yam solo yoo xam te wax na ko ci journée démb bi ñu jugee eh, fii ci diggante fils de balle ki nga xam te mooy ku ci nekk anam bi nga revenir na ci wax ki nga donc erreur yi mu def mu doon en grosso modo briefing boo xam defal nañ ko mu daal di jëm ci combat bu am solo ñu koy sant di ko rek ci disponibilité am parce que à chaque fois bu ko dañuy di aussi suma ñaari technicien ku ci Bécaye Koundoul ak Madani euh, di la sant di leen gërëm merci.